salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin fii ci daralu gaaraasu Daaru Muxti aw nag moo fi faat aw fas ginnaaw bi mu songee nit kile ba pare yàlla def mu mucc fii la fii la am njëkk dugal uh, béjjën bi ba ma yëkkati ci kaw mu sànni mu jëlaat ma bii gis nga bi moom jëlee bii gis nga fi fii la béjjën bi génne ndee dama yor woon sar dama yor sama benn xar rek maa maa ko mat dem rek yëkk bi dab si ma nag bi anam gii la fàtte fas wi ab béjjën la ko jam naw bi mu songee nit ki ba pare waaw ah, yëkk bi moo ko rey bi mu bi mu man boobu rek laa ko ronu béjjën bi yëkkati barank sar bi cool ni jëkk fi sar fu mu cool noonu yàlla sunu borom rek moo dal su waaye man maa fa njëkkoon ñaar njëkk a tër waaw moo yaram moom borom sutura la kon maa ngi bu baax nag bi li tax mu faat fas yi mooy seeni borom dañ ko yeewuloon. yokk bi rëcc tudde seen borom dañu yàllax buum bi rek ñu wàcc ko mu aw mbedd mi ñoo yàllax buum bi wàcc ko rek mu aw mbedd mi di dem. boobu boobu laa ma def nii boobu la rey fas wi nag fas wi waaw. jéey ju ni mel nag mel na ni duggulet mu am ci daral waaye loolee war na tax ñu yokk kaaraange ci daral yi lee. bari na lu ci daral bi ndax fii be daral daara noonu la toujours maa ngi gis soog mel nii mu rëy nit waaw daral dafa war am sécurité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 هما لي هلا ماهن ما الأبس